auzu billahi assamil alim min asheytaan irrajim bismillahi arrahmani irrahim mbokk yi nga xam ne yéen a ñuy topp ci xew-xewu jamono ngeen ànd ak seen mbokk imam Dramé xew-xewu jamono bi nag tey xam ngeen ni euh, mooy li xew ci réew mi rek ndax loolu moo tax a jóg chronique bi waaye di wax ni rek ñun ay jullit lañ lu mën a xew rek bala ñuy déglu xalaatu kenn wala ñuy déglu wala ñuy topp waxu kenn dañuy delluwaat ci waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lam ñu ci waxoon bala ñuy commencé nag ngeen baal ñu ñu am loo xam ne mënuñu ko bañ a wax ñu rafetlu bu baax a baax geste bi nga xam ni sëriñ Muntaxa Mbàkke def na ko xafisahullah wa ayyadahu wa nasara geste bi mooy yëkkati deux cent millions ci contexte bi réew mi nekk ni daf koy jàppale nguur gi pour ñu xeex feebar bi loolu nag jàpp naa ne boo ko defee umma bi yëpp la ko defal l'islam bi yëpp la ko defal waaye yoonu murit la ko defal kon ñun en tant que ay nitu diine duñ man lu dul rafetlu ko di fàttali nag ni du lu bees parce que boo jàngee histoire sëriñ Touba réew réew mi bi fi tubaab yi nekkee même bu ñu nekkee ci ay xat-xat moom Cheikh Ahmad bàmba daan na jël alalam jox ko tubaab yi loolu def na ko du benn yoon du ñaari yoon histoire bind na ko Serigne di Mokhtar Mbacke nga xam ni kenn dootu ko fàtte ndax taxawaay bi mu amoon yëkkati woon na fi milliard jox ko nguur gi kon loolu euh, lu liñ naan l'histoire se répète waaye nag lu baax moom képp ku ko def rek dañ ko war a wax pour ñeneen ñu roy ci moom kon ñu ngi wax kilifa diine yi nga xam ni ñu ngi ci réew mi ñu ngi leen di ñaax ci loolu ñu def ko parce que réew mi bu problème amee jàpp naa ni ñun en tant que ay nitu diine waruñu toog rek jàpp ne état moo wara réglé lépp waaw kon ñeneen ñi ñu ngi leen di xaar ñu def parce que nag loolu la ñuy xaar ci ñoom parce que ku yàlla may wërsëg ku amul nag du farata mais ku ko man nga def ko li ñuy wax nag nga xam ni tey moo tax a jóg dëgg-dëgg xew-xew bi mooy gis nañ ni malgré ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllu santé mu ngi communiquer ak nit ñi di wax ci feebar bi mais ba tey lenn ci sénégalais yi ku am seetlu gis ni lenn ci sénégalais yi ñu ngi dute ndax feebar bi am na wala amul donte man wér na man ni feebar bi am na mais dut boobu li ko indi lan la foofu lañu ñu war a taxaw parce que mbokk yi Sénégal bu fekkoon ni tey jii ministère boobu dañoo jël ab médecin dénk ko ko nga xam ni buy wax dañuy xam ni kii di wax li muy wax xam na ko maîtriser na ko bu baax lu wax sénégalais yi ñu gëm ko mais réew mi ab politicien moo fi mënatul a wax lu nit ñi gëm loolu mooy problème bi parce que mbokk yi crise bi am suñ digganteeg politiciens yi mooy crise de confiance te crise yëpp crise de confiance moo ci gën a garaaw moo tax bu ngeen seetloo politiciens yi lu ñu wax kuy nit di nga ci am dut parce que dañ ñoo yàgg wax muy dëñ donte li ñuy wax léeg-léeg day nekk dëgg donte li ñuy wax léeg-léeg day nekk dëgg mais crise bi gën a garaaw ci crise yi mooy crise de confiance lii liñ ci war a jàng mooy lu toll ni ministre de la santé waruñu ko jox ab politicien dañoo war a seet ab docteur ku mel ni Eva Marie Coll Seck bi fi nekkoon ñu bàyyi ko mu continuer loolu parce que cas yu mel ni bu amee moom bu ciy wax li muy wax dina ci nekk en les mais boo déglu Ablaye Diop saar nga baal ma man awma dara lu ma koy contre mais buy wax dangay xam ni day wax nii sax mais li muy wax maîtriser wu ko kon loolu il faut communication boobu ñu defaraat ko parce que boo gisee Touba déclaration bi nga xam ni yeex naa am nga xam ni Serigne Ahmad Badawi moo ko def démb ñu nga ci ñu ngi ko ci félicité moom Serigne Ahmed Badawi parce que man xam naa ko bu baax mu nekk borom xam-xam bu mag bokk ci ñi raw ci senegal di doom ci Serigne Fallou Mbacké li mu def moom Serigne Ahmed Badawi loolu mooy borom xam-xam parce que boroom xam-xam dara wuru ko euh, pousse ci mu yàkkamti di jël décision boo xam ni pression moo tax mu di ko jël rawatina ku ñuy tuddee nit diine parce que ñëw wane nañ ni màggal gi dinañ ko def. mais façon biñ koy defee mooy day wuuteeg façon bañ ko daan defee loolu man ànd naa ci essentiel mooy bu nit ñi ñëw bâche yi dajaloo nit ñi dajaloo mais nag nañ toog jàng alxuraan parce que ñu ay jullit lañ bu crise amee ci réew te ñu gëm ni crise bi li koy régler mooy ñaan kenn du fi jëlee ñaan loolu lu jar a taxaw la kon sëriñ bi wane nga ni boroom xam-xam nga te wane nga ni yow ñi war a donn mag ñi ci nga bokk parce que nag bu ñu kenn nax ñun boo gisee lu nguur wax ñu dute ci histoire li mu wane mooy nguur yi fi mus a jaar commencé ko ci tubaab yi dañu am fuñ jaar ak sun maam yi particulièrement nag Touba boo gisee Touba lépp lu état wax ñoom ñu ciy dute mooy li histoire wane nga xam ne kenn mënu koo effacé mooy tubaab bi dafa am fu mu jaar ak Serigne Touba. Touba loolu tax ñu rejeté lépp tubaab te am nañ man loolu ànd naa tubaab Touba mooy seul dëkk boo xam ne ba tey ji jàngum nasaraan tasaaroo wu fa te loolu bokk na ci li tax ñu garder seen patrimoine ba tey te wolof nee na lala fal boo ko bàyyee rek di nga folliku kon seriñ bi sa décision boobu man ànd naa ci donte nañ annuler gàmm yi loolu loolu wax nañ ko mais ku ci ne ak ni koy ni koy annuler du force ci ni dañ ko dañ ko war a annuler rek cent pour cent bu dee dajaloo bi la état bi di bañ kay loolu ànd nañ ci waaye nag di wax ni encore une fois nañ ko gën a yaatal bañ ko yemale rek ci gàmmu yi casino yi bu dee tëjaguñ ko nañ leen tëj parce que foofu ay nit dañ fay dajaloo comme niñ tëjee université yi tëjee ko école yi ñu ngi ciy état bi parce que lu baax la mais casino yi nañ fa dem tëj ko baar ñu tëj ko parce que yooyu tamit nit ñi dañ fay dajaloo waaw di wax ni nañu delluwaat rek ci ñaan ñun ay jullit lañ te gëm ni feebar bi yàlla moo ko fi indi mu nekk balaa te balaa boo amee nag lii tax balaa bi jeex mooy tuub tuub ñaan parce que alquran wax nañu ni wala nabluwannakum bi cheyin min al xawfi wal juuci wal naqsin min al amwali wal anfusi wa samarat wa bashir sabirin alladina ida asaabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla nee na su leen nattoo ci peur maanaam tiitange parce que bo xolé situation bi nga xamni ne mi fi ne ñepp peur manam ñepp tiit néna suma su ci bu ngeen jugee ci tiit ab xif mo ci top comme ni niñ koy foggé ci kanam parce que aduna bi ko xol ni mi doxé xamni ci crise économique bu metti la jëm yalla néna wala mënatu leen ci seen alal wàññeeku wala seeni bakkan yen ñi ne ay julit ngeen na ngeen wax ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mooy na ngeen delluwaat ci yàlla wax ni yàlla moo ñu fi ci yàlla lañ jógee te ci yàlla lañuy dellu kon jullit dara waru koo tax mu paniqué ñun ay jullit lañ malgré tëj nañ école yi décision bu baax parce que nguur war na koo def tëj nañ ah, ani ne leen gàmm yi mais jullit ñi nañ continuer di ñaan ndax ñaan fu waaye mën a toog war nga faa mën a toog di ñaan comme ni ko sëriñ Ahmad Badawi waxee adduwaawu silaaxul mu'min ñaan mooy ngànnaayu jullit di wax ne li pour daaneel nguur gi lépp lu mu wax nit ñi di ci dut dute mooy crise de confiance bi am digganteem ak askanam te loolu il faut moom mu régleel ko boppam parce que moom moo liggéey loolu bu fekkoon communication yooyu ñuy def leer na ci bopp askan wi lépp luñ mës a waxati askan wi ñu gëm ko tey coronavirus bi ñëpp xam nañ ne am na de mais le fait que état di ko wax rek nit ñi nit ñi dootuñu ko gëm parce que crise de confiance moo am digganteem ak askanam waaw jàngat boobu il faut ñu def ko ci di wax ni réew mi incha allahu rabbi jàmm rek moo fi xew parce que réew mi nit ñu ay ay jullit ñoo fi nekk ak i chrétien waaw lu tere nag ñu ñu ñu déglu docteur yi waxuma politiciens yi man politicien mënu ma wax lu ma gëm man fu mu neex nag nga gëm mais man politicien mënu maa wax lu ma gëm maa moom bopp ñu déglu docteur yi nga xam ne ñoom administration moo leen fi teg réew mi la ñuy liggéeyal te jàpp nañ ni ken mënu leen manipuler ñu wax nit ñi chiffre yi man lu docteur wax gëm naa ko waaye man benn politicien mënu ma wax luma gëm in uridu illa al islah wa ma tawfiqi illa billah axiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu